DSL Inco jàppoo la liggéey ñoo leen di may seen émission les pros du métier. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Beaucoup travailler. Toujours travailler. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi seetaan L24 TV rawatina nag di ñu topp ci suñu émission bi les produits métiers tey nag ñu ngi fas yéene ànd ak yéen suñu septième numéro di am mbégte nag daal ci euh, Serigne Ahmadou Bamba Niane di yëngutu ci wàllum informatique ñu fas yéene waxtaan nag lu jëm ci informatique informatique nag nekk loo xam ne ni lu yaatu la waaye nekk mbir moo xamante ni itam am na wàccuwaay bu baax a baax ci liggéey yépp ci àdduna tey ji nag moom lañu fas yéene waxtaanee. ay bànqaasam li mu lal ay njariñam waaye itam ay lor wala ay gàllankooram itam am na loolu nag tax nañu am mbégte dalal ci kenn koo xam ne nii yàgg na ci ràññeeku na ci di Serigne Ahmadou Bamba Niane nekk fii ci Touba dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo Cheikh Bamba ñu ngi lay nuyu. Euh, jërëjëf Serigne Ablaye ñu ngi sant bu baax te di la gërëm ci invitation bi nga xamante ne moom nga ñu defal tey. Mhm. di sant di gërëm mbokki euh, sénégalais yi ak euh, un peu partout fu nit mën a nekk ci si àdduna bi di seetaan euh, seen chaîne bi di L24 TV di am kontante bu baax rek ci invitation bi tey ñu fas yéene waxtaanee lu nga xamante ne vraiment neex na waxtaanee naqari naa waxtaane muy informatique ndax dafa nekk loo xamante ne ni c'est un métier boo xam ne lu lu large la lu bari aju si kawam ñu mën cee traité ay thèmes yu bëree bëri nag. sëñ Bamba dinañ ci ñëw incha allah bi eh, di la jaajëfal ci nuyoo yu am solo yooyu di fàttali mbokk yi rek ne émission bu am solo bi ñu ngi ci ànd ak suñuy partenaire suñu sponsor officiel di DSL Inco. waaye ci di ndokkal itam mbooleem àdduna bi ci jamono yi nga xam ne ni ñëpp xam na ne dañu toll ci mbas natt boo xam ne ni borom bi moo ko wàcc ci àdduna di ñaan mu daal di koy gaaw teggi may ñu xolub ñu muñ ko. bu loolu jàllee Cheikh Ahmadou Bamba noonu nga ko waxee nuyoo nga ba pare nuyoo yi am na solo suñ bëggoon a xam tuuti jaar-jaar wala carrière u Cheikh Ahmadou Bamba am njàngam ba ni dugg ci métier mi lan nga nu ciy leeral. jërëjëf sëñ lay loolu xëy na dinañ ci euh, wax lu tuuti rek ndax bari na bariwul aussi euh, bu ñu sukkandikoo rek ci li nga xamante ne jot nañ ci jaar ci wàllum informatique. mooy que ñun ñu ngi tàmbali di découvrir outil boobu ñuy tuddee informatique en deux mille cinq 2005 2005 lañ ko découvrir ci ay anam yoo xam ne sax mën naa wax ne ay anam la yu xaw a yu xaw a yu xaw a yu xaw a simple la woon ci ñun ndax environnement bi ñu nekkoon doon fa dund la peut-être euh, bi ñu ko découvrir ba léegi nag mu nekk loo xamante ne dafa ñu captiver mu nekk loo xam ne dafa dem ba nekk passion ci ñun depuis lool ñu koy exercer boolewuñu ko ak dara pratiquement suñu njàng nag buñ ci waxee daanaka du am solo lool ndax xëy na teel nañ ci jóge waaye xam nga ak àdduna bi surtout yàlla bu la dimbalee nga suivre lu mel ni informatique daanaka du doon blocage ci yow et boo nekkee ku mel ne man nga xam ne danga nga xaw a curieux di gëstu foo toll euh, yaakaar naa am njàng mën nañ koo jàngee ci anam yu nekk dari nag bu xësee am yenn base yi dina la permettre nga mën a gën a suqaliku ci euh, am njàng ubbeeku euh, waaye daanaka bu dee ci wàllum njàng école ak yooyu moom taxu koo sori lool. macha allah terewul nag informatique bi bañ ci nekkee ba léegi yàlla mi ngi ciy dimbali. mu nekk lu ñu bëgg d'abord. nekkul rek loo xamante ne dañ ko suivre pour wut ci ay xaalis ak yooyu noonu naam am na ci solo. Euh, waaye li ñu ci gën a sooxal daal mooy li nga xamante ni moom la ñuy xëy di ko découvrir chaque jour parce que c'est comme ça avec l'informatique chaque jour que j'ai fait boo taalee benn ordinateur bala nga koy fay tu vas apprendre quelque chose de nouveau donc loolu moo nekk suñu jaar-jaar ñu jaar ci fu bari nag euh, def ci lu bari ndax euh, informatique comme noonu ñu ko waxee ci début bi rek dafa nekk lu nga xamante ne ay pàcc yu bari la balaa ngay dem ba di ci spécialisé wu tamit il faut nga découvrir ci pàcc yooyu noonu Euh, daanaka euh, pas lépp ndax loolu mënee su ko daanaka mais nga tànn ci rek yoo xamante ne nii yu yu ay base lay doon euh, ba au fur ngay continuer moo lay orienté waat nga dem ba am benn objectif nag daal ne man kat wax dëgg yàlla lii découvrir naa ko te passion bi mu ngi fa ko defee nga nekk ci loolu di ci gëstu chaque jour mën cee non seulement di xëy di wut loo am waaye tamit nga mën ci di di di di di suuxat sam xel di ci suuxat sa bopp tamit ci ci ci wàllum xam-xam ba nga xamante ne daal vraiment liñ ci bëgg danga ko mën a am. macha allah loolu mooy daanaka li nga xam ne mooy suñu parcours ci informatique ñu dem ba toll ci nag ci benn niveau boo xam ne vraiment. am nañ ci loo xam xamante ni yàlla dimbali nañ ci ñu spécialisé wu ci. Mhm. xëy na bu ñu gënee avancé tout dañ ko expliquer en détail. nit ñi mën a comprendre exactement li ñuy def lan la. Mm, jël sëñ Bamba mu mel ni kon ni nga ko waxee tënku na 2005 ak léegi yaakaar naa fukki at ak juróom yi bu matul teg na. Mhm. Euh, kon yaakaar naa ne métier bépp métier boo xam ne ni def nga ci plus de dix ans war nga ci am expérience te loolu dina feeñ ci kanam wax nga ko léegi mu mel ni informatique bu ñu ko waxee mën nañu ñoo jël exemple lu ci mel ni. Euh, mbir la wala liggéey la boo xam ne nii wala métier wala domaine la boo xam ne nii dafa bëri ay bànqaas wax nga ko léegi machine fi mu ne nii boo ko taalee lu mat euh, fukki nit mën nañoo ñëw liggéey ci liggéey yu wuute noonu ñëpp dañuy waat ci informatique mm. léegi bu bëggoon a xam informatique ñaata bànqaas wala naka nga koy séddalee wala domaine u informatique lan ak lan ak lan mooy ko séq looy leeral internet yi ñuy seetaan jamono yi. ah waaw loolu mën nañ ci wax tuuti rek waaye tamit tuuti lay doon ah. <laughs> Ah, ndax euh, comme li nga ko waxee noonu informatique dafa nekk li nga xam man su ma koy tënk. Mhm. damay wax ni informatique moo nekkoon lu nga xamante nii yàlla peut-être moo ci dimbali doomu aadama yi. Mhm. ba ñu découvrir ko. Mhm. ndax euh, dem nañ ba nga xamante ne informatique lépp loo tànn ci àdduna bi muy lu doomu aadama xëy di di ci yëngatu. Euh, mën na ci mën na ci sukkandiku pour mën a suqali loolu muy def en commençant par kii kii ki nga xamante ne nii euh, dafa dafay xëy sax di débrouiller ci ay yenn bricolage yi ba ci ki nga xamante ne dafa dem ba ci yeneen domaines yi gën a mag ci ci ay métiers parce que sax métier du ndaw loolu la ñuy faral di wax y su pas de métier mais nag lépp lu waaye di def daal ci àdduna bi ci comme métier jàppal ne mën nga ko boole ak informatique te métier bi ñu boole ak informatique boo xoolee ci jamono ji bi ñu toll nii du sax du sax nuroog du sax bokk qualité ak métier bi nga xamante ne boolewuñ ko ak informatique ce que je veux dire par là mooy par exemple mason bi nga xamante ne moom mu ngi utiliser informatique du yam ak mason par exemple bi nga xamante ne moom dafay dafay dafay xëy rek li mu xam moom mooy jënd ciment jënd fer jënd béton ainsi de suite jaxase mélanger truc même ci jaxasee boobu noonu muy def sax booy utiliser outil euh, informatique bi dina la jàppale ci nga xam dosage bi nga xamante ne spécifiquement soo bëggee tel ou qualité nii nga ko war a doser lii nga war a utiliser lii nga war a utiliser fii nga ko war a utiliser nii nga ko war a utiliser en fait. Mm-hmm. informatique nekk benn outil boo xam ne vraiment euh, pàcc tam bëri na. Mm-hmm. duñu nekk fii di ko lim parce que mënuñu ko lim ba mu jeex. Euh, xajul ci benn émission ndax benn boo ci jël bu nekk rek mën na nekk ay émission yu bëree bëree bëri bëri donc euh, informatique en grosso mooy loolu mooy li nga xamante ni doomu aadama bi mënu ko ñàkk mhm. ci ak dundam ci jamono ji ñu toll nii ndax euh, dañoo toll foo xam ne daanaka euh, boo xoolee li sabab sax turu informatique bi mooy automatisme de l'information donc yaakaar naa information du du rek nga toog dégg ne dara xew na Dakar wala dara xew na États-Unis wala dara xew na non non non yaa yaa yaa dafa am ay ay ay xeetu information yu bare bare bare bare bëri informatique nag nekk ci benn pàcc bu nga xamante ne euh, information moom ci niñ ko xamee ñun ci ni mu gën a gàtte rek mooy ay ordinateurs ñoom ñooy traité information yooyu noonu ordinateurs yi li ñuy utiliser ci information di ko mën a traité mooy ay programme li ñuy utiliser ak ay matériel donc matériel bi mooy li nga xamante ne moom nga mën a gis ak bët ci ci ci teg ko nii mu nekk l'écran l'unité centrale ak yooyu yëpp terewut boobu yooyu noonu am na ci benn bu ci nekk ay non seulement matériel ak ay programme yu spécifique yoo xam benn bu ci nekk moom moo ko constitué mu nekk loo xam daal vraiment Euh, c'est très tellement large bu nga xamante ne ni ñu toog sax di développer lépp ci benn émission boo xamante ne peut-être du du sax jël yenn temps yi. macha euh, boobu leer na. Euh, bu ñu la déggee informatique nekk na mbir moo xam ne nii. Mhm. lépp lu nit di yëngu ci àdduna jamono yi. Mhm, informatique da cay feeñ. effectivement te ko ca utiliser sax. ci mhm. lay gën a mën a méngoog jamono. effectivement que ki nga xam ne utiliser wuñu utiliser wuñu ko xam naa loolu après dinañ ci ñëw ci mm-hmm. benn question ci diggante informatique ak itam dunduk doomu aadama xam naa dinañ ci gën a yaatal euh, wax nga ko léegi mu mel ni ay bànqaas yu yaatu la mm-hmm. waaye tey bu ñu bëggoon a xam euh, Cheikh Ahmadou Bamba Niane en tant que informaticien mm-hmm. ci ban bànqaas la spécialisé wu ci li léegi wala yan bànqaas bon waaw waaw yan bànqaas peut-être bëri hmm. bëriwul ndax euh, am na fu ñu jaar quand balaa ñuy am di fixé wu benn objectif ne man kat fii laa bëgg a évoluer ci domaine bii nii ci biir informatique actuellement ñun développement web la ñuy def quoi euh, développement web tamit euh, yaatu na yaatuwul ndax boo nee développement web da ngay ñëw ci par exemple internet hmm. li nga xamante ni nii mooy ay site internet hmm. li nga xam ne mooy ay application web ak ay application mobile yu nga xamante ne ni nit ñi chaque jour que jëfee ak avec les smartphones ñi ngi koy xëy di utiliser donc ak sa smartphone léegi daanaka da ngay mën a toog sa biir kër wala ngay dem si mbedd mi di jokkoo wala ngay liggéey daanaka pratiquement te du jarati léegi ngay dem sax ci toog ci benn bërëb pour mën a exercer sa sa sa liggéey carrément euh, développement web li ci gën a répandu mooy ay site internet yi ngay faral di gis nii mm-hmm. donc boo demee sur euh, une machine mm-hmm. nga tijji benn navigateur nga tapé 3w point nangam nangam bon point com point org point net ainsi de suite mm-hmm. sont les sites internet am na tamit li ñuy wax ay application web euh, c'est c'est c'est c'est Euh, spécifique tamit ci entreprise yi ndax dañuy liggéey ak ay entreprise di liggéey ay ñoo xam ne ay particulier lañ. Mm-hmm. kenn ku ci nekk boo ñëwee ak li nga xamante ne moom nga soxla donc ñun fi ñu gën a casé wu mooy développement site internet yi développement application web yi développement application mobile yi nga xamante ne moom la ñuy mën a installé ci système Android yi système iOS yi mm-hmm. euh, mooy Apple yi mm-hmm. ak yi nga xamante ni Windows mobile la donc yooyu yëpp ñu ngi ciy ñu ngi ciy yëngatu actuellement terewul def nañ avant ñuy spécialisé wu ci domaine boobu noonu euh, li ñuy wax maintenance informatique mooy li nga xamante ni moo lay permettre dëgg-dëgg architecture machine bi nga mën ko comprendre booy liggéey ci mbir tamit li nga xam ne moom mooy machine bi en tant que tel moo lay permettre nga mën a exercer euh, métier boobu noonu donc day lay dafay baax nga mën ko gëstu ba xam exactement li nga outil bi nga yor di ko di ko liggéeyee lan la donc moo indi woon sabab ñu ñu gëstu ci wàllu maintenance informatique pour xam exactement le fonctionnement d'un ordinateur comment comment comment ça se fait derrière donc euh, def nañ tamit euh, réseau li ñuy wax réseau mooy euh, ni ngay mën a fexe réseau mi ngi tàmbalee ci nga fexe ba jokkale ñaari ñaari ñaari terminal par exemple si on peut dire mm-hmm. pour que ñu mën a communiquer donc euh, tàmbale ci ay infrarouge ay bluetooth ak yeneen réseau yi gën a large donc pour mën di envoyante ay information donc mën naa ko tënk nag ci benn côté ndax fii boo fi nekkee fii faut ngay essayer di sat di adapté wu mhm. par rapport ak euh, euh, société bi ngay dund man damay faral di wax ne daanaka boo xoolee informatique jàng ko jafe na jafewul mhm. ndax damay faral di dégg ñu ne Dieu a créé l'homme à son image mhm. mais l'homme a créé l'informatique à son image. À son image. est-ce que nii c'est-à-dire man damay wax ne ku xam àdduna ku xam àdduna ni muy fonctionner maanaam socialement war nañ laa mën a jàngal facilement informatique nga comprendre ko am compréhension bi quoi même su dee théoriquement ci la yem mais nga am compréhension bi bu fekkee am nga ouverture sociale bu boobu boobu noonu cest à nga yàgg séq ak ay nit xam nit ñi nan la ñuy séqee seen biir toute une famille nga gis ni ñuy séqee mu am maam yaay papa yumpaañ am mag am rak ainsi de suite donc boo duggee ci wàllum réseau foofu noonu mën nañ la fa expliquer lu bëree bëri ci loo xamante ne nii duñ ci sori di la indil ay termes yu compliqué yooyu noonu non mais dama lay wax Ablaye Faye yow seen famille nan la constitué woo nga expliquer ma ko ma expliquer la fonctionnement d'un réseau informatique nii lay demee nga comprendre ko facilement tu n'as pas besoin nga dem toog ci école bi def ay grandes études yooyu noonu pour comprendre. voilà parce que c' est comme ça c' est comme ça. macha informatique euh, nit daf ko créer mhm. pour mu dimbali ko ci tâche quotidienne yi muy xëy di def. Mhm. donc moo tax daf ko adapté ci fonctionnement am moom. Mhm. ndax bu ko adapté wul woon ci fonctionnement am ordinateur boobu noonu mu créé tey par exemple du mën a interpréter yenn information yi parce que information yi muy traité tamit doomu aadama moo koy dugal information yooyu noonu moo koy codé. parce que ci ay programme lay dox yoo xamante ne doomu aadama bi tamit ba tey mooy mooy mooy programme programme yooyu noonu jox ko ay instruction yu précise nag daal nekk lii laa bëgg nga defal ma ko. sëñ Bamba yaakaar naa ne leer na. donte xëy na bëri na ci ay mots yoo xam ne nii vraiment étrange na ci suñu suñu vocabulaire. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne ñu ngi seetaan te xam lan mooy informatique yaakaar naa du leen jaaxal. Mm-hmm. wax nga ko léegi kon dafa mel ni euh, sëñ Bamba bu bëggoon a wax euh, spécialité am wala li nga xam ne nii moom la fi expliqué. mooy koo xam ne nii dafay yëngu ci wàllu defar site internet. nekk loo xam ne nii itam jamono jii da cee toll. ndax bu jëkkoon site internet yi ci information na. da ngay gis koo ne nii day jaay day defar day am am site internet mm-hmm. da ngay gis nag koo xam ne nii dafay ubbi école day am site internet nga xam ne mbooleem yëngu-yëngu yi nga xam ne nii activités yi nga xam ne nii day am ci àdduna mm-hmm. fexe nañ ba lié ko ak site internet ba nga xam ne mm-hmm. euh, nit ki day nekk fii mën a xam nekk ca Europe nekk la la nekk ca France nit ki day nekk fii di jaayante ak a ku nekk Europe loolu lépp xëy na euh, sa liggéey yaakaar naa ne euh, moo moo moo koy tax a a kon yaakaar naa ne képp nga xam ne nii soxla nga site internet internet incha allah bu jog ko yow danga nga ko defaral euh, ba tey itam mën nañu wax ne yemoo sax ci defar site internet mais man nga gérer ab entreprise wala société wala n'importe qui ab ab ab site internet am hmm. loolu itam yaakaar naa ne am na ñoo xam ne ni xëy na donte amuñu ay informaticien ci seen i société dañuy jël benn site wala seen i site daal di jox benn informaticien wala benn développeur hmm. ni nga ko wax léegi ñu mu mu saytul leen ko loolu itam xam naa après dinañ xool nit ñi ku ko itteewoo naka lay def ba jaar ci yow wax nga ko wàllum réseau euh, da ngeen ci yëngu macha allah ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais comme mbir mi dafa tënku ci wàllum temps xam naa dañuy continuer ba tey ci laaj yi beneen laaj bi ci tegu mooy wàllu informatique ba tey maanaam impact wala njeexit wala njariñ li nga xam ne ni am na ko ci dunduk doomu aadama léegi laa wax nañ ci tuuti muy képp koo xam ne ni yaa nga yëngu te sa yëngu ci jamono ji boolewoo ci informatique mm. mën naa am système bi dana la rawut mm. sa système day archaïque mm. kon mel na ni jamono ji ñu toll nii wax naa ko léegi ak euh, problème yi nga xam ne ni foofu la monde bi toll ci euh, Covid 19 bi confinement et cetera am na ci entreprise yoo xam ne nii seen i employés xëyatuñu mais ña nga seen i kër di liggéey ak ñoom. kon mu mel ni informatique wala li nga xam ne moo di euh, mbàllum réseau wala wàllum site internet. am na impact bu positif ci dundu nit boo ñu ko doon tënkal wala nga ñuy leeral lan nga ñuy wax ci côté boobu. waaw wax nañ ci sànq wax nañ ci sànq nag euh, informatique moo nekk uti bi nga xam ne Serigne Ablaye mënul ñàkk ci doomu aadama actuellement hmm. mënul ñàkk. Hmm. mënul ñàkk ndax euh, su fekkee bëgg nga dund dund bu simple actuellement hmm. dund boo xamante ne ni doo bëri ay dugg-dugg yu bëri wala sax nga gàttal sa tànk rek. wala perte temps. non gàttal sa tànk. informatique mënut a ñàkk ci yow ndax informatique do donga daara bi walla walla sax euh, sëriñ daara bi nekk ci ci ci ci ci daaraam yor ko actuellement nga xam ne moom <laughs> jàngut ay tubaab jàngul anglais jàngul dara alxuraan la jàng ki ci utiliser informatique ci jamono jii nii yamut sax ak ki nga xam ne utiliser wu ko moom tamit qualité yi ñuy demee ko ak rapidité bi nga xamante ne moom la la mën a indil c'est-à-dire que wax nga ko sànq mooy euh, la manière bi nga xamante ne moom la la informatique mën a gagneloo du temps c'est-à-dire li nga waroon di man di xëy di ko def comme tâche quotidienne ci une heure de temps ngay ci ku utiliser wul informatique kuy utiliser informatique mën naa la wax ne dañ koy réduire à quatre vingt ou bien voire même à pour cent donc en moins de cinq minutes en moins de dix minutes ci li nga waroon def une heure de temps mën nga ko ci def avec Euh, impact social bi mën a am mooy euh, informatique mën nga koo xëy di c'est-à-dire rek yow nga xëy war a war a ci ci jamono ñu toll nii nga xam ne dañoo toll ci benn pandémie boo xam mi ngi ci àdduna bi muy muy coronavirus bi gars yi di coow fi mu nekk nii. informatique rek moo nekk benn outil bi nga xamante ne mën na dimbali doomu aadama yi ci jamono jii nii pour que économie bi bañ a sooxe. pour que dundi nu doomu aadama bi aussi socialement psychologiquement nga mën a stable c'est-à-dire que tey boo yorutoon sa smartphone bi di mën a am des informations de l'extérieur la ñu bëgg laa confiner ci benn appartement doo génn doo dem fenn nga toog rek di tey par exemple même télé bi ngay seetaan nii mënul woon possible lu dul informatique dafa exister ordinateur portable bi nga yor di man di connecté à l' internet ainsi de suite sa téléphone portable bi nga yor nii tey mun la jox yenn information yi par rapport ak pandémie bi nit war a mën a nekk fële tey ji di la expliquer nan nga war a xëy di def tey ji am na ñoo xamante ne seen i ay entreprise xëyatuñ dafa dem ak seen tànk mhm. seen biir kër wala seen biir néeg la ñuy toog parce que confinement bi moo ko laaj donc impact bi mu mën a am socialement mhm. foofu rek boo ci jëlee mën nga jël benn exemple boo xamante ne ci jamono ji ku nekk dana ko comprendre. macha allah voilà donc. léegi euh, xam naa dañuy jëkkanteeg temps bi ba tey. Ah, ndax ni nga ko waxee léegi li duuf ci nag bi yëpp xajul ci ci li mais xam naa dañ koy def <laughs> ay émissions yu bëree bëri bu soobee yàlla. Hmm, wax nga ko léegi rek hmm. mais exemple bi ma la ci jox rek. wala hmm. li nga wax léegi li ma la ciy firndeel rek. ci jamono yi passé yaa da la ay 15 jours yooyu. yaa ngi doon dégg à travers les réseaux sociaux. ñu naan euh, boo xoolee kaamil bi ci sóoratu mm. wala ci saar baqara baqara eh. euh, am na karaw yonent bi et cetera eh, ay fake news yoo xam ne ni gis nañ ko léegi euh, li ma lay wax rek ne euh, informatique mm. ñëpp ko utiliser mm-hmm. moo xam jànkatu alxuraan yi yëpp mm-hmm. dama dem ci benn daara doon gëstu lool mm-hmm. mais kooku xat-xat yi ma ko fekk ak yooyu tax na mhm. mënul euh, jël kaamilam xool ko exactement mhm. dane ma xaaral ma xool ko Google ma ne ko kon possible mu ne waaw mu daal di bind aaya bi taf taf mu jox ko données yi mu jox ko maanaam référence yëpp fii la nekk fii la nekk fii la nekk bi ñu demee xool ko mhm. lan doon seet heureusement gisuñu ko ci <laughs> dama la doon jox benn exemple rek euh, pour te dire ñëpp ñoo nekk jamono yi di utiliser li nga xam ne nii moo di informatique waaye par contre am na ay aspect négatif yu bëree bëri ndax euh, euh, ni nga ko waxee léegi informatique am na ñi ñoo xam ne nii dañ cee ay ci côté affaire déchiffrer ay code mm-hmm. ñi encœurs yi ni ñu koy mm-hmm. waxee mm-hmm. nga xam ne mën nga toog fii mën a détourner compte jàmbur mën nga toog fii mën a créer benn virus donc kon euh, informatique ni mu amee ay effet positif noonu la amee ay négatif sëñ Bamba effectivement sëñ Ablaye am na ay côté négatif mais <laughs> damaa jàpp ne rek question de choix loo ci gis lu nekk question de choix ndax doomu aadama bi lu muy def ci àdduna rek choix la koy defee yàlla li mu la digal digal ma ko digal ko ñëpp dañuy def sax ay choix ndax da ci jaar wala doo ci jaar te loolu ça n'a rien à voir ak informatique li ma lay wax ni mooy question de choix la doomu aadama bi lekk ak naan sax il nga xëy di choisir li ngay lekk tey wala li ngay naan tey loo gis ci àdduna dafa am ay côté positif am ay côté négatif amul loo xamante ne benn côté lay doxee tey jii bon si on parle d'islam parce que ñun loolu lañ gëm bi ñu joxee exemple foofu noonu am na lu ñu la ciy tere loo xamante ne nii mooy côté négatif bi boo ko defee rek indi sa safaan wala ñu indi werante te yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko ñi ñuy xëy di leen yaakaar di leen topp it bëgguñu ko donc informatique épargne wul te te te li ma la njëkk a jox nii comme exemple yàlla moo ko créé léegi li doomu aadama créé nag moom waxaale wuñu ko ndax doomu adama doomu adama la bien que matul teg ci waaye naa la ci jox benn euh, astuce bu ndaw rek gis nga loolu sax niñ ko yombalee yombeewut noonu maanaam loolu ñuy def noonu euh, taxu ko demee niñ ko yaakaare ndax toog fi nga toog sax di détourner compte jàmbur moom loolu man gëmu ko ci ni ma ko xamee man faaw nga jóg loo gis lu nekk mhm. coono yi nga ciy daj effort bi nga ciy daj pour mhm. loolu mhm. yaakaar naa soxlawul ngay sonn ci loolu pour juste bu dee xaalis rek moo la ci motiver xëy na leneen nag motiver la ci pour man nuire la peut-être mënoon na maa motiver ci loolu noonu c'est possible nag ndax léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne nii ci loolu rek la ñuy yëngatu franchement euh, am na ay côté négatif yu bare bare bare bare bare ndax euh, tey jii am na loo xamante ne nii suñ ko seqoon man ak yow mu bëgg laa nuire mën naa cee nuire bu gaaw a gaaw gaaw waaye ndax jamono ji moo ko moo toll foofu noonu li ma la wax sànq rek social bi mu am mooy que ne léegi ñëppay utiliser informatique c'est-à-dire tout le monde est informatisé maintenant tout le monde da ngay romb benn taalibe ci mbedd mi mu lay yelwaan naan laa rabbi laa naan fekk mi ngi smartphone boo xamante ni lu mu gàtt gàtt cinquante mille francs lay jël <laughs> di connecté internet comme yow mhm. tey jii am na information yoo xam ne su ma seqoon ak yow nii rek amicalement xam ko ci yow xam ne sëñ Ablaye nga tudd sant nangam ainsi de suite bërëb sàngam nga dëkk am ci yow yenn information yi mën na maa permettre ma mën a ma mën a ma mën a jéem a uh-huh. def ci yow dara ndax lu mu gàtt-gàtt am nga compte Facebook wala nangam ki nangam su ma jéemee usurper compte yooyu noonu su ma réussir mën naa cee def nag su dul noonu maanaam ñi nga daan seqal di communiquer yooyu. ma utiliser beneen terme ak ñoom. beneen visage. beneen terme rek ah. waaw beneen terme beneen <laughs> terme rek boo xamante ne uh-huh. dafay offensive tellement que. Uh-huh. dañ naan est kii sax ab Ablaye lay waxal wala du moom ainsi de suite ku la gis di la ko jàppee te du la ko mën a wax xëy na. dëgg donc mu nekk lu négatif loolu lu tuuti la rek lu uh-huh. tuuti la ndax gis nga bomb yi ngay gis gars di ko sànni informatique moo ko permettre. <laughs> loolu rek déjà lu lu lu négatif la loo xamante ne ni baaxul bomb yi gars yi di sànnante ci àdduna bi nga xam ne tey jii da euh, ay ay ay conflit économique ngay am ak nit rek euh, te ñaari nit lay doon yenn marché yi nga bëgg ko ñu bloqué la ci fii affaire yooyu nga fexe ba créer benn guerre parce que yaa ko ëpp puissance ainsi de suite il faut nga wan ko sa doole informatique moo koy permettre informatique nga mën a utiliser toog fii nii di nuire ku nekk état unis donc ñu ci mën a def ci lu bon moom franchement bari na mënuñu ko expliquer tellement yaatu na mais mënuñu mënuñu expliquer côté boobu boo ma fi dugalee xaw perplexe. macha allah macha allah donc day day dafa doy waar. ndax ñu ci mën a def moom franchement. Mhm. bari na waaye nag. côté côté positif bi daal da ko ëpp. da ko ëpp te ma jàpp ne ñëpp ci côté positif bi rek la waroon a yem nag. dëgg loolu moom uh, wér na comme ni nga ko waxee léegi le système de cybercriminalité. Mm-hmm. ak uh, réseaux sociaux yi et cetera. Mm-hmm. léegi nag vu tout ça dañuy jël méngale ko ak li nga xam ne moo di actualité xam naa foofu la ñuy mujjee. Mm-hmm. muy uh, jamono ji gis nañ ne yaa pandémie ni nga ko waxee. benn ju law yaatu ci àdduna lool. ba jamono yi xam naa lim rey ci nit moo tut un million léegi mu àgg fa. boobaak léegi nag euh, ñu ngi gis information yi mu ngi bàyyi ko fu nekk surtout Afrique nag lañ ci gën a yàpp mm-hmm. am na ñàkk yu ñu fi indil am nay doom yu ñu fi indil mm-hmm. nangam sangam. Mm-hmm. Euh, message yi di véhiculer ci euh, réseaux sociaux yeeg affaire yooyu nga xam ne réseaux sociaux yi daal tax na léegi comme li nga wax léegi nii yàqante bi ci askan wi yaatu na te lépp day tàbbiwaat ci informatique en tant que koo xam ne ni da nekk ci biir domaine bi ban conseil ngay jox société bi. Mm-hmm. rawatina Sénégal yi rawatina nag jullit pour ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax. xam naa oh. foofu la tëje tëjee. Oh, waaw dëgg la loolu moom lu am question bu am solo nga posé foofu ndax euh, li nga xamante ne moom la ñuy xëy di ko dund vraiment c'est malheureux. Mm-hmm. ñu ci massawu ñi nga xam ne mm-hmm. ñoom la touché wala ñoom la gën a touché. di ñaan yàlla rek d'abord balaa ñu ciy wax dara ñu ñaan yàlla mu yamale ko fii ni ñuy wax nii. que buñ daaneelee suñu kàddu yàlla na ko fi yàlla jëlee. te ñi nga xamante ni jot na leen dal ba jë jaar yàlla jaare ci yóbbu seen bakkan it ñu ñaanal leen yàlla yërëm leen te yokk leen ay yiw waaye nit ñi dañu war a conscient ci benn affaire léegi rek oto bi ma dugg maa ngi koy wax chauffeur bi que ne tey jii boo déggee benn dëkk yee amu ñu ne la amu fa tey benn nit bàyyi ba midi mu ñëw dugg fa tey balaa 17 heures mën na contaminer le maximum de personnes boo xamante ne daanaka ñooñu tamit kenn ku nekk jaar côté contaminé waat yeneen ñeneen euh, dafay gaaw pandémie bu amee dafay vir bu dee virus la virus virus ci côté yëpp man déjà bu ma la jox explication dinaa mën a comprendre tout ci virus ndax ordinateur yi ñuy utiliser rek déjà bu amee virus ni muy ah, propagé woo non ni muy propagé woo dafa gaaw dafa dafa dafa doy waar mm. euh, ni mu mën a li mu mën a yàq tamit kenn xamul nu nu mu toll mën ngaa jël sa àdduna yëpp tënk ko ci benn disque dur par exemple virus ñëw yàqu ko léegi nga téye sa bopp jaaxle doo xam nooy def donc loolu moom loolu te lu ndaw la quoi donc dama la doon jox benn exemple rek waaye pandémie bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy dund muy coronavirus nit ñi dañoo war a conscient ci ne kenn ku ci nekk da nga war a nekk responsable nekk sa médecin wu bopp ba pare li nga xamante ne nii ñoom la yàlla dénk ñu koy saytu nga xam ne loolu rek lañ xam loolu la ñuy xëy di def liñ la ci digal da nga koo war a appliquer bu dul dara nga sàmm sa bopp d'abord mais kenn ku nekk am nga ak njaboot njaboot ça ne veut pas dire rek ne am naa doom wala am naa jabar déedéet am nga papa am nga yaay am nga mag am nga rakk bu dul dara sax am nga xarit boo xamante ni nii waroo ko yéene lu bon lu mel ni que virus di dal ci kawam donc pour sa protéger wala nga protéger sa prochain nga fexe bu le maximum possible ci liñ la wax ne la lii boo ko defee mën na la cee muccal wala mën naa muccal sa morom nga appliquer loolu ba pare terewul kenn ku ci nekk ak sa diine sa diine bi nga xam moom nga gëm di ko dund moo xam lislaam la moo xam christianisme la lu mu mën di doon bu dee dëgg la ci yow c'est message que je lance bu dee dëgg la ci yow nga fexe nag ba dara bañ la ko yàqal dara ndax bu dul dara tamit yàlla mi nga xamante ne moo ñu sàkk lim ñu digal daf ñu koo digal teg ci ay directives daal ne nii lañ koy defee ci anam bii la bëgg ñu ko koy defee mu gën a rafet ci anam bii la bëgg ñu ko koy ñu koy bàyyee lim ñu tere donc loolu yaakaar naa dafa nekk lu am solo loo nga xamante ne nii waruñu bàyyi suñu suñu suñu suñu suñu suñu peut-être suñu inquiétude. Mm-hmm. ci ci ci feebar. di ñu ko xañ wala mu ñu ci indil benn blocage wala ñu ciy demee ak demi mesure. ay demi mesure amul ci loolu yàlla dafa lay dafa strict ci li nga xam moom la sas doomu aadama bi diine boo mën di gëm surtout rawatina lislaam dafa am nuñ koy appliquer dafa am nuñ koy dundee waruñu ci dagg dara. donc loolu moo nekkoon suñu message. Mhm. di ko lancé kaddu te itam. Mhm. Euh, di ñaax nit ñi rek nañ delluwaat tamit ci ci ci ci ci ci li nga xamante ne nii. Mhm. Hmm. bu du woon pandémie sax moom dañ koo waroon di sàmmonteeg moom muy cat gi euh, ak ak ak ak ak moytu bi ak tamit di muñ man a muñ mm-hmm, surtout waaw ndax euh, muñ moom mën naa mën naa metti waaye mën naa indi njariñ ci doomu aadama bi macha allah donc comme sëñ Ablaye waaw xam naa <laughs> kaddu yi mujj yi waaw di xanaa di ñaax rek nit ñi que ne informatique dañ ko bañ a sàggane te xam ne daal mm-hmm. mën naa nekk loo xam mën nañ ko utiliser pour def lu baax mën nañ ko utiliser pour def lu bon nag waaye daanaka yooyu yëpp amul njëriñ ndax loo mën di def ci àdduna bi rek mën nga caa def lu bon moom. dëgg <laughs> def ci àdduna bi rek mën nga caa def boole lu bon ak yooyu noonu waaye xam nga loolu choix la mooy li ma la wax rek. choix wu doomu aadama bi doomu doomu aadama yi bu xëyee am choix wu ne man damaa bëgg a bon moom kenn mënu ci dara kenn mënu si dara. mais message bi may lancé par rapport ak informatique daal mënta mhm. ñàkk ci doomu aadama yi lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt doomu aadama bu nekk xam na war naa xam nan la ñuy utiliser lu mu gàtt gàtt un ordinateur nga xam dana ko mën a taal. dina mën a xëy créer ab document di ci sax mémoriser li muy bañ a <laughs> fàtte rek. loolu rek loolu rek avantage la. wala téléphone portable yi nga xam ne léegi daanaka foo tourné ñu jaay la ko lu yomb wala boo ko ñaanee kenn ki la gën a jege sax mu may la ko. Mhm. nga fexe ba xam ci dara loo xamante ne nii boo bañee fàtte benn mbir sax mhm. ci journée bi mhm. nga di ko ci enregistré mu mën na laa jariñ macha allah donc loolu moo nekkoon suñu message jërëjëf te comme ni ñu ko waxoon rek di ñaanal yàlla adduna bi ba mu daj yàlla na si yàlla euh, saafara daal li nga xam moo fi nekk instant bi muy covid 19 bi muy coronavirus jërë ngi jëf jaajëf sëñ Bamba ni nga ko waxee rek léegi daanaka boo xoolee ay jamono bu doon wax illettré ku jàngut dañ doon kii ku demul daara wala ku demul euh, école mais fi mu ne nii illettré yi jamono ñi fa lañ toll ñi nga xam ne nii jànguñu xamuñu dara ci informatique man na leen a considéré lool kon ni nga ko waxee rek nécessité la boo xam ne nii mënul ñàkk ci dundu doomu aadama euh, ni nga ko waxee itam yaakaar naa ne leer na di leen sant di leen gërëm di leen fàttali nag ñoo ngi ànd nag yéen suñu septième numéro dalal Serigne Ahmadou Bamba ñaan informaticien waaye ni mu ko waxee léegi gën a spécialisé wu nag ci développeur site wala maintenance maanaam liggéey la boo xam ne nii wax na ko léegi képp koo xam ne nii soxla nga ko ci rek xam naa dinañ leen jox numéro yi ku bëgg a créer site internet wala ku bëgg ñu gérer sa site internet wala lépp lu la jaaxal ci wàllum ordinateur daal boo ci jokkoo moom bu fekkee mën na ko moom dana ko saafara incha allah euh, mu ngi nekk fii ci Touba xam naa bu ngeen gisee numéro yi ngeen man koo jo woo di jaajëfal ak sant également suñu naataango yi nga xam ne ni vraiment ci seen euh, makkan lañ doon tourné émission bi mooy waa Assalaamy TV lëkkaloog waa suñu info di sant euh, Serigne Fallou Sylla Serigne Cheikh Gueye Daouda ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di euh, remercier également suñu euh, sponsor di suñuy partenaire DSL Inco nekk fii ci Touba di jaay ay matériels yu am solo ñeel mboolem askan wi rawatina ouvrier yi ñoo ñu jàppale ci émission bi li moo nekkan suñ septième numéro di leen jox dox daje huitième numéro bi euh, dans quinze jours wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jàppoo sellal liggéey DSL Inco moo leen doon may seen émission les produits métiers. il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler.